Mhm. Euh, bu ñuy wax tamxarit ci histoire lan la lan moo waral bés bi tey. yaa baal ma rek euh, xel dafay fattu ma jaale ñi nga xamante ni ñoo génn àdduna. Mhm. ci accident boobu ngeen di wax. ñaan yàlla yàlla na yàlla xare leen aljana. ñi nga xam ne dañu bàyyi njaboot itam yàlla uutu leen ci seen njaboot ndax nag lu waaye baax baax yàlla moo la gën foofu ci sa njaboot. ñi nga xam ne ci la ñu nekkoon itam te amuñu ay soxna itam seen way jur yi ñu doon dimbali yàlla uutu leen ci ñoom yaa tam xarit. weer wi la ñuy njëkkee mooy weer wi mooy weeru muharram mooy janvier jullit ñi mooy muharram ni ni janvier amee février mars avril ba décembre wala anglais di wax january février ba décembre defe naa loolu ngeen di wax noonu la amee muharram muharram mooy janvier ci ñun muharram safar yaa ngi dégg 18 safar mhm. parce que safar weer la muharram safar rabion awal rabion thani jamaadu ula jamaadu saani rajab choban shawal ramadan zulhijja zulqaada muy janvier ba décembre ci ñun muharram nag du sunu janvier mu nekk weer boo xamante ni yonent bi daan na wax naan muharram bii di janvier weeru yàlla la li tax weeru yàlla la mooy weer la woo xamante ni dafa bari ay xew-xew yu ci am ci yonent yi li ci njëkk weer wii ci la yàlla jéggaloon maa aadama muharram fa taaba alayhi innahu wa tawaabu rahim yàlla dafa ni ko woon demal aljana nga dund fa yow ak sa soxna yenn saa yi dama koy faral di wax ci palaato yi ma ne leen jigéen xaalis yoru ko moo ko yor dëgg parce que jigéen aljana lañ ko defaree jigéen a ngi juddoo aljana ci faaru maam aadama ci biir aljana kon ci biir bànneex la judd moo tax jigéen chaque jour sentiment moo ko yor ku lépp sentiment rek moo la ko gën a mën a téye euh, ci tam xarit ci ñun nag dañuy jël rek bésu tam xarit mm. mais li ëpp li xew doo dégg ñu naan Ashura mooy lendemain bi tam du première jour mm. mais neuvième jour la mooy bésu tay bi mooy mooy taasix mooy mooy tey ñun nag ñooy togg cere ñooy taajaboon <laughs> ñooy sol yére góor jigéen ñi ñooy sol yére góor góor ñi sol yére jigéen te dama wax ne teg ay perruque texte ku sa way jur mere doo nelaw waaw kon mere yàlla nan la war a mel yonent bi dafa ni sallallahu alayhi wa sallam la yàlla rëbb na arrijaala tushbihu nisaa a góor ñii nduru nduru lu jigéen wa nisaa a tushbihu rijaal ak jigéen ñii nduru nduru lu góor ay mais xool ñun Sénégal suñu aada am nañu àq yi ñu def ci guddi gi mooy ñu ngi tëgg hmm. ñu ngi yor ay bool est-ce que xam nañu këru jàmbur bi ñuy dem di dugg ñaata nit ñoo fa feebar wala mbedd buri yi ñuy def ñaata nit la ñu mën a déranger wala kër jàmbur yi ñuy dugg te fëgguñu te l'islam dafa ni bul dugg kër jàmbur lu dul ni da fëgg ba ñu wax la entrée nga doog a dugg est-ce que ñun ñu ngi fëgg. mais loolu est-ce que nekkul kii yow euh, nekkoo di xalaat comme xalaatu oustaz moderne yi quoi parce que bon loolu man c'est la première fois mu dégg ko ay bu leen fëgg buntu kër jàmbur parce que bon. parce que sori woo mën naam mën naa naam soreegoo ci jàng. sërëgoo si jàng c'est-à-dire ci alxuraan ak ci diine. ah mais yow xamoo ma bul wax loolu yow tamit. waa parce que boo waxee loolu boo ne maa ngi koy doog a dégg tey. waaw damay wax ni kon sërëgoo. non mais bul jugé loolu jugement la oustaz laaj ma lu tax warul jugé dañuy waxtaan rek. non da ngay jàngale sooy jàngale. wóoruloo nekk di def ay jugement bu fekkee dañuy da nga boo jàngale alxuraan da nga war a wax loo xamante ni wóor na la. communication bi may def. man maa a man maa gën a néew xam-xam ci oustaz yi. mais dama ne. su boo nekkee oustaz yi jàngale alxuraan war a wax lu la wóor ma la première peut-être c'est la première fois ma. xamuma ba xam jàng naa xamuma ba xam jàng. léegi tëm naa loolu. waruloo wax ne waruloo wax ne en tant que oustaz que euh, da ngaa xamul wala wala wala wala. jàngul léegi léegi léegi léegi tëm naa loolu dama am habitude plateau parce que maa ngi liggéey ci télé souvent damay moytu ñaar. Mm. damay moytu attaqué gor ay mbokkam di seetaan te sopp ma man te xam naa ne bari naa soppe damay ragal attaqué koo xam ni sa way juru jigéen mën na maa sopp wala sa way juru góor mais moo bi nga utiliser. moo tax ma wax la loolu. d'accord léegi ñu ñu continuer ci waxtaan. léegi nañu dem hmm. mm-hmm. mooy lislaam dafa ni yàlla dafa ni bi waxal gaa ñi ni leen bu ñuy dugg kër jàmbur yi na ñuy fëgg bu ñu tëb tëb rek dugg yonent bi ci civilisation jàngaleem nee na boo ñëwee ba ci buntu kër jàmbur wala buntu néeg boo fëggee kenn waxu la entrée ba muy ñetti yoon tourneel nga dem bul yëdd. bul dugg sax déedéet. Seydina Omar ibn Khattab dañ ko mu sox ni ko diw day màndi te waajuru Seydina Omar mandem gi muy mandi mais Seydina Omar ibnu Xataab daf ko bett exemple bu ma lay jàngalee dafa jaar ci fenêtre bi yëndu ko ni ko diw da ngay naan sàngara rek waa ji siggi ni ko bu la yonent bi fekkoon ci jamono dina la yay ndax li mu la jàngal bi mu génnee àdduna ak léegi yàggul te yaa ngi koy fàtte Seydina Omar dafa feebar ci loolu parce que lu tax mu nekk ñaareelu xalifa yonent bi nit di ko corriger ci pourquoi que ngay jaar ci sama fenêtre te yow yëgloo pour ñëw borom kër sax ci ci aadaa bu boroom kër booy dugg sa kër da ngaa war a yëglu alors Adja maa ngi ñëw maa ngi nàngam ci borom kër. Mm. da war a yëglu sa njaboot maa ngi ci yoon bi maa ngi ñëw. parce que dafa am loo xam ne xadaara la muy civilisation tubaab day wax tubaabe mais civilisation alxuraan arab moo ko njëkk a jàngale jullit moo ko jëkk a jàngale. Mm. ñu dem bi ci des mooy tamxarit ñun ñun Sénégal afa bi hadal xadis taajabuuna wa tadaxakuuna wala tabkuuna wa antum saamiduuna fasjudu lillahi waabuduhu yàlla nee na tamxarit du bés boo xamante ni ah, da ngeen ci war a nekk di fo te yàlla nekkal ci bés boo xam ne ñii ni parce que li gën a wóor mooy nen rek weer wi. weer wi weer wi. Hmm. le premier parce que ñun tey déjà le neuf la. Hmm. mais lu tax ñu ci togg cere. lan moo tax. parce que bi may gën a nekk parce que ñun la neex ñu koy togg du a du aada la du diine. Hmm. bi may gën a nekk xale suñu kër dañ daan dëpp euh, nu tudd bool. kër gu mag laa nekk. dëpp ñaan dëpp ñaan dëpp ñaan parce que aada la boo xamante ne ay mag ñoo ko daan def rek ñu ñu ñëw ne xaaral nañu def aada nangam di ko ci teg mais daf ci am benn maam aadama ci la ñu ko jégal fa taaba ali indi wa tawaabu rahim ci suratul baqara yonent yàlla Muusa ca la mucce yonent yàlla Nuux ca la mucce euh, euh, yonent yàlla Suleymaan ci la ko yàlla joxe nguur mais diggante le neuf bi ak le dix bi daf ci am yeneen xew-xew yoo xamante ni neexul ci jullit ñi tamu dal Ousseynou sëtu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. xew-xew la. benn mooy yaa ngi dégg Karbala. Mhm. ñu naan la Ousseynou naanul keroog Karbala mais gis nga mook Assane ay seex lañu Assane ci bisu tamxarit ci la ko soxnaam ndax li ëpp dañuy wax ni cere la mais damay wax ni ñaari gëw ma ko. Mhm. ñu ne aljana. pom lañ fa pom la fa maam aadama lekkoon génn normalement ñun bu ñu waree dellu aljana fu ñu gis pom war nañoo daw kon. yéen góor ñi. dañu wax ni rek yàlla daf ko tere benn garab parce que yàlla citewul garab gi ci alxuraan. wala taqraba sa jara fa takuna min azalimin yàlla dafa ni ko aadama <clears throat> na ngay moytu garab gi lu la neex aljana laalal mais garab gi daal na nga fexe ba bul ko laal mais comme seytaane fexe na ba kër maam xawaa soxnaam soxnaam imposé borom kër mu lekk ci nga xamee ni jigéen dafa am doole mais lekk bi ñu ko lekk ñoom ñaar yàlla insisté wul ni garab nangam la dafa ne rek leen laal garab gi mais ñun ñoo naan garabu pom la mais bu fekkente ni sunu maam garabu pom moo ko génnee aljana est-ce que ñun war nañoo lekk pom kon. parce que olof dafa ni ku ndóobin rey sa. sa maam boo gisee lu ñuul da daw. da daw kon jàppal rek am na lu leen yàlla tere bu leen ko jege ñu dem ba jege garab gi mais bi leen yàllay baal te maam aadama yàlla bi mu koy baal nekkul rek dafa tëb tëb baal ko. parce que da doon gis aljana ay laa ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa sallam mu gis ci étiquette yu aljana yi laa ilaha illallah muhammadu rasulullah tampon kudd yi aljana mu ci gis laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ci la waxee yàlla ni ko maa ngi lay jéggalu kii nga xamante ni sentir naa ni fu ma tourné aljana gis naa nga bind sa tur bind turam mm. yàlla ni ko foo ko xamee mun ko dama xam ne turam daa jege sa tur rek wa damal ilahu isma nabi bi ismihi isa xaalati fi xamsin muazinu ashharu wa suqalahu min ismihi luy ji lahu arshi mahmudun wa muhammad yàlla ni ko fa taaba alayhi bés boobu kenn du wax ni la bisu ashura la wala bisu tasua tasua mooy tamxarit tey ashura mooy suba bés bi mais dañ la wax ni la ci diggante la premier wala trent ci diggante boobu ci la xew-xew yu bari amee yàlla jéggal ko yàlla jël ay nguur mais surtout yonent bi soxnaam dañ ko fay Mm. ni ko sa sa boroom kër boo ko rayee ak ak ak méthode boo mën a jaar pour rey ko méthode boo mën a jaar boo ko rey dinañ la def buur bi ni ko dinaa la jox teraanga dinaa la defal nangam dinaa la defal nangam dinaa la defal nangam moo tax bi ma demee màkk ren aji dama wax naar yi ni leen gis-gis bii ma gis màkk ak gis-gis bi ma gis Medina ñun du ñii lañ ñu toppaloo mais ki tëdd fii lañu ñu yàlla bàyyiloo xel mbaax gi ne ci ñun sénégalais Mm. yaatu gi ne ci ñun mën jàppalante bi ne ci ñun lu yàllay wax alxuraan ci jullit ñi naka la ñu war a mel lu yonent bi indi ci ay ahadis masalul ne ni jullit ñu war a mel nangam nangam nangam nangam ma ni ko ma ne gisuma ko ci naar yi mais kon ma ne leen yàlla kii la ñu royloo waaye nekkul ni naar yi la ñu yàlla bàyyi loo xel parce que ci jikko bu rafet bi ñu yor ci nangam nga xool sadik bi nekk ci ñoom ak ñàkk patience bi ñu am ci ñi àcc ak yooyu ma ne bu ñu reyee surtout yonent bi rek yaa quelque que ni seen jikko la ñu wane ñu rey ko ñii ni bisu tam xarit lañ ko rey ci guddi gi ci guddi gi mm. Mm. ñii ni ci bëccëg gi euh, ci lendemain bi lañ ko rey waaye li wér te mooy bi ñu ko reyee bopp bi dañ koo dagg di ko football yàlla wàcc alxuraan afa bi xasal xaddis yi taajaboona baatu taajaboon fa la jóge déggoo taajaboon lu ci topp taajabooni naar wëllëy du wëllëy la ñuy wax taajaboon wëllëy xam nga wallay mooy lan wallay li mooy guddi afa bi xasal xadis yi taajaboon a taajaboon mooy xanaa yéemuwoo leen olof ni taajaboon boo demoon di laaj mag ñi lan mooy baatu taaja boon da ngay gis olof di ko wax concept bi ma njëkkee ci plateau bi baatu taaja boon da xam lu muy signifié da nga xëy dégg ko wala déet da nga ko dégg Adja est ce que da ko xam hélas da nga koo xam baatu taaja boon waa lan lu muy signifié moom mooy mooy sargal année bi non non waaw lu muy signifié waaw ah, koy demal laaj signifié wul sargal année bi <laughs> lan lay signifié demal laaj laaj nañ ñu daanalee foofu baat la boo xam ni taajaboon ku neex ngeen am <laughs> ku yéex am xam-xam ngeen am ku ñëpp bëgg nag waaw moo tax ku ñëpp sopp mais ma bëgg ngeen may ma émission boobu bu doon man ak moom mais bu doon man ak moom ci émission wuy eh, eh, ma oustaz dinaa fexe muy nangu par force mais oustaz te lépp ci xam-xam la waaw déglu ma wax la oustaz boo nekkee oustaz dangay comme lu ma la wax sànq il faut pas ngay aventurer aussi terrain yoo xamante ne maîtrise. oustaz day blague rek en pap on on on mais mais mais mais Tadio ah mais Tadio ban langue la ban langue la. Tadio woon ban langue la. hey danga may laaj fa am saa yi la fa laa baatu arabe la ñu doon utiliser. boo demee ci alxuraan afa bi hazal xadis. taajaboon laa ban langue la si ban langue la. arab maa ngi la koy wax. waaw ma ne la boo demee ci alxuraan fa la baat bi nekk. olof xamut lu mu signifié alxuraan ban ban ban langue la la. arab la arab ah d'accord ok d'accord. imaam déggoo olof de. mais mais lan ñoo man la arab mais nan la ñuy mais nan la ñuy waxee si arab euh, fête euh, euh, comment dire fête une année si arab nan la ñu koy waxee. Aïdun Saïd. mais mais loolu mooy taajaboon ci arab. alors alors ce qu'on va faire. oustaz ñu bàyyi la nga daaneel foofu Pape maa ngi ñëw ci yow. ñu bàyyi la nga daaneel parce que am na leneen lu ñu war a waxtaanee. gën a yaatal ah taajaboon nag parce que ñu jël bopp bi di ko kàjj. en tant que sëtu yonent bi. afa bi hazal xadisi taajabuna wa tadaxakuna ña ngay ree am mbégte lool moo tax jullit guddi tamxarit warta sol yére jigéen ci góor jigéen warta sol yëree góor du feet rafetul ci jullit parce que bisu tristesse la ci mhm. ñoom wa antum saabidun dégg nga aaya bi li jeexee fas judu lillaahi waabuduhu dem leen ngeen sujootal yàlla yéen jullit ñi ngeen jaamu yàlla ci guddi ci moo waral ci lendemain bi comme suba ñu woor moo waral ci lendemain bi suba ñu la demal nga seeti ku feebar. Mm-hmm. moo lay wan ci lendemain bi suba ñu la demal nga raay bopp jirim alors ci lendemain bi suba demal nga yaatal ak sa ci feebar.